suur nañu añ

ñoo ngi fi ci diwaanu Goudomp avec la caravane de la liberté ñoo ngi jugee Ziguinchor ñaari waxtu ci ginnaaw fii mooy Goudomp ñu bàyyi leen nag ambiance jaajëf fii mooy Goudomp Goudomp di bu miin Ousmane Sonko ndax ñëw na fi jaar fi jaaratu fi

ñu dem la mais mais problème moo wax leen gudam andil ngeen ma problème ndax mobilisation spontanée bii ñu gis dina tax ba suñu gaay yi fële ñu tëdd pare dootuñu nelaw léegi nag léegi nag léegi nag pour les prochaines étapes di ngeen gis ni dinañu mobiliser gendarmerie mobiliser police ma ne di gis ni fii la démarré ñoom dañ leen ne woon Sonko fu mu dem kenn du génn accueillir ko waaye gis ngeen comme ñoom. léegi nag liberté boobu mooy réew yi su ñuy natt réew yi ci démocratie ñu ngi seet niveau de liberté bi nit ñi am Sénégal ñu boole ko ci réew yi nga xam ne jàppoon nañ ni moo tare ci Afrique ci démocratie waaye depuis douze ans maintenant yàlla nattuñu benn na boo xam ne moom yàlla nattuñu firaw na boo xam ne nee na liberté dootul am Sénégal est-ce que di ngeen ko nangu. est-ce que Macky Sall dinañu priver de notre liberté. je parle particulièrement à la jeunesse. yéen vous êtes la jeunesse consciente yéen a ngi fii. joxuma leen xaalis. digguma leen. waaye yàgg ngeen dégg suñu discours. am ngeen yaakaar ci ñun. te xam ngeen ni bu ñu toogee réew mi defaru mais. au-delà de vous je parle à toute la jeunesse parce que am na ñoo xam ne ci jeunesse bi amaguñu niveau conscience boobu gis nga bu ñu seetaanee ba Macky Sall bu ñu seetaanee bu ñu seetaanee bu ñu seetaanee ba Macky sal am li mu bëgg jeunes yu bëri fii am nañu 18 ans wala 19 ans wala 20 ans ba trente ans bu ñu nangoo Macky sal def li mu bëgg xam leen ni bu serez des prisonniers et des esclaves daa votre pays gis ngeen lii lii yàlla moo ñu ko may te liggéey bu rëy la depuis huit ngi liggéey saaga nañ ñu dóor nañ ñu xas nañ ñu dàq nañu suñu liggéey complot nañ ñu lu ne def nañ ñu ko mais accepté nañu supporter ko parce que nous aimons ce pays là mais ce qu'on ne pourra pas accepter mooy Macky Sall xam ni dans huit mois bu élection amee Ousmane Sonko sera président de la République ci kattanu yàlla mu ne moom day toppale ànd ak ay juge pour tere Ousmane Sonko nekk président de la République est-ce que yéen la jeunesse de Goudomp di ngeen kon suñu marche pour la liberté loolu la ñu bëgg a wax liberté sera définitivement acquise dans neuf mois neuf mois ba nekkuñ de kenn ku ne ci yéen su ñu nattee atam ñaata yoon neuf mois mi ngi ci nu mu tuuti dina am vingt neuf mois ci biir kon su desee bi du neuf mois tey la war a gën a résister tey la ñu war a gën a xeex ñu ngi leen di gërëm di leen dañu war a continuer ba Kolda yal yàlla jàppale ñu di leen masal baax ci événement yi asalaamaaleykum